lan lañu def ba ñooñu di dem wala lan lañu ñu waroon def ba ba du ñu dem je crois que question yooyu mooy les vraies questions qu'on doit se poser. ndax dafa am lu ñu doon wuti sooy wuti dara nag c'est que da ko amul fi nga nekk loolu mooy responsabilité gouvernement yi fi jaar yëpp nag ñu war cee def ay pexe te am na ay pexe pexe yooyu xam nañu ne wutal leen liggéey à travers l'industrialisation am na ku ko wax léegi à travers moderniser pêche à travers les usines yi à travers le tourisme à travers les bëree bëri c'est la solution bi Inch'Allah, nous, en tant que gouvernement euh, nous nañ ci de ma part madame le ministre ci sama programme en tout cas qui annoncé dans les prochains jours Mbour nañ ci un projet d'importance importance c'est la zone industrielle de Mbour benn bi de Mbour ça n'a rien à voir avec li ñuy def Sandiara ak li ñuy def feneen ak feneen ndax xëy na buur su amoon ay usines am ay agropole boole koog géej boole koog napp bi xëy na lii xëy na waxuma du dina taxaw waaye lu bëri na ci leen li mu war a def mooy en tant que gouvernement gën a surveiller la côte ndax euh, réponse délégué wax na ko léegi su fekkee ne gis nañu les signes yoo xam ne gaal day dem je pense que préfet su ko yëgee dina arrêté commissaire de police bi yëgee dina arrêté autre ce ko yëgal nañu arrêté kon lolu aussi am li ci wara def ñun en tant que gouvernement loolu le euh, président la République ci boppam moo na fi ñëw inshallah, madame ministre na ko wax léegi pour wax lan la nara def ak lan la nara sant gouvernement pour lolu mëna taxaw waye ñu suñu responsabilité ñun moy en tant que membre du gouvernement en tant que doomu nguur membre aussi du conseil départemental de Bourg, nañ ci taxaw ci fan bi nga xamne ne ci lañ wara taxaw ndax gis nañu ne so taxawé lolu rek soo taxone ay usines ak taxo ay agropole def ko ay ci village def ko ci quartier di nga gis ne su doon téeméer ñoo doy dem ñaar juróom ñooy dem kon lolu yaakaar boobu lañu war indi wat on doit restaurer l'espoir pour xale yi des on doit restaurer l'espoir pour jigen ñi des bi on doit donner des des des projets yo xam di le permettre xale yi amna ñun kat kon mën naa juddoo fii fi fii fi fii loolu rek la bëggoon wax ne suñu walu ministère. Euh, avec madame le ministre la ci ñëwaat léegi gouvernement le lépp lu mu mën pour que non seulement mu arrête buur fii arrête mu aussi à Joal à Kayar à Saint-Louis à Ziguinchor parce que c'est partout dans le dans le département kon lii lu métti la loolu moo tax tey ma am fi ñaari taxawaay taxawaayu doomu Mbour taxawaay responsable politique mais may nuyoo aussi docteur Diaité taxawaay également ministre de l'industrie et du commerce Le xam ne sama le département dama bokk ci solution yi nga xam ne a arrêté te incha allah dinaa ko def maa ngi leen di gërëm di leen sant di euh, masuwaat képp koo xam ne sa doom dem na ci waaye ñun ñëpp lañu war a jaale ndax képp kuy doomu Mbuur rek képp kuy sénégalais ba ci sous région bi euh, alors dañ ko kii ma jàllewaat nag sa sama frère Cheikh Issa ndax fukki nit ak ñaar suñu jógee sa famille dara des fa dara des fa waaye comme ni ñu ko wax ci alxuraan rek si moom bés bu mu war a dem kenn mënu ci dara façon bi ngay demee kenn mënu ci dara kon ñaan leen yàlla xaral leen àjjana ñun ñu fi nekk yàlla may ñu fi ñu gën a gudd fan waaye fexe ne ba lii mu wut ay solution définitive contre ça